Moustapha Seck euh, ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. Elisabeth ngi leen di fay yéen waa FM yëpp. Mhm, ngay entraîneur football ca Oslo football club euh, yoroon tamit euh, ñaari tali ak AS Pikine ak ñi nga xam ne ñooy Lion loko yi tey ñu waxtaanee match Sénégal Zambie euh, bañ ca jógee ñu dem ci match Sénégal cap muy ay match date FIFA yi nga xam ne ñaar yëpp Sénégal andi na ci euh, ndam yow mi technicien nan nga jàngatee euh, ñaari jongante yi. d'abord en tant que sénégalais mbégte. Mhm. et en tant que technicien je pense que mbégte bi dafay gën neex parce que comme ni may faral di wax rek équipe nationale moom suñu patrimoine la. donc képp kuy sénégalais rek ci nga bokk mhm. suñu joué ñaari match nag ñaar yëpp yàlla defal ñu ci ndam mbégte donc lañ ci maanaam et puis li ci gën a neex mooy ñu dugal ñeenti bit te encaissé ñu benn mhm. parce que cela attaque bi liñ ci soxla woon am na ko défense bi aussi ah, ñu ci bëggoon am nañ ko parce que match pour nga gagné ko il faut nga dugal lu ëpp lu adversaire bi dugal fekk nag da ngaa dugal ñaar match bu ne ci encaissé woo je pense que bu dee noonu moom dina gën a neex ci ñaari match yu mujj yi gis nañ Aliou Cissé mu dellu siwaat ci liñ ko yàgg xamee muy euh, euh, système 4-3-3 euh, donc mu wute lool ak 3-5-2 bi nga xam ne nemmeeku woon nañ ko bu yàggul ndax lii moo firndeel ne 4-3-3 mooy formule bu baax bi. xam nga mbirum ay ay système de sax man duma ci faral di bëgg di waxtaan ak ñu ci bari parce duñ ci déggoo. parce que mm. damay xalaat ne football moom ku ci nekk am nga ci am na ay dénominateur commun. Mm-hmm. loo xam ne ni mu valable fii Sénégal noonu la valable Singapour mën la valable faneen mais euh, li naan muus bu ne yaa xam ni nga tojee sa bopp jinax parce que tey jii bu fekkee euh, sélectionneur national bi Aliou Cissé dafa am benn benn benn benn ngelaju rek. Mm-hmm. ñu war dem ci compétition yu mag yi ñu teel a comprendre ngelaju boobu ah bu boobaa suñu yeneen match yi dina métti. Uh-huh. mais su fekkee da koy def comme borom kër am ay takk yu bari boo amee benn jabar buy bañ nga xam nan nga koy nan nga koy alee mhm. fekkee am nga beneen jabar <laughs> bulu kii di pontoo nga dem ci kële xam nga lu boobaa am nga solution yéen sax yéen journaliste di ngeen di am plan A di am plan B loolu doo tax man euh, ci moment bi nga xam ne da ciy essayé beneen organisation de jeu mhm. moom moo xam parce que mënoo xaar ba compétition bi commencé nga doo ko def ñenn ñi nag wax ne être bee lañ gën mokkal que bii ba mais niñ def ba mokkal bee buñ ko continuer ci match amicaux yi ba mokkal bii je pense ci biir match bi buñ ñu ñu solee ci bii mën na jël bële. kon daal bu ma la ñuy tëj maanaam ah. euh, essai yi nga xam ne ñu ngi koy def ci euh, ah. wàllum tactique bi. non c'est-à-dire euh, boo xoolee les grands rendez-vous bi bu ñuy ñëw dañuy ñëw ak organisation de jeu yëpp. Hmm. lu koy waral tey jii par exemple da ngay xool équipe bu mel ni Manchester City. entraîneur bi danaan 33 jours la soxla te ci 33 jours yi onze bu nekk ak organisation de jeu bu may joué. Hmm. mais ci ci biir loolu da am ay joueurs yoo xam ne ñoom ñooy noyau équipe bi parce que dañuy mën a adapté wu ci organisation de jeu bu nekk. Hmm. je ne sais pas si comprendre nga li ma bëgg a wax. mooy ossature bi daal. waaw mooy ossature bi am na joueurs yoo xam ne système de jeu boo leen dugal. Hmm. dañuy dem mais dañu am ay joueurs yoo xam ne ci système de jeu bi la ñuy gën a gën a gën a nekk à l'aise ñii di gën a nekk à l'aise ci système de jeu bi. Mhm. moo tax nag moom ci biir loolu joueurs yi ngay jël euh, paramètres yi ma doon wax tout dañ ci en ligne de compte. tey mu mel ni Sénégal ba tey amagul équipe am ñoo ngi wër équipe euh, bi nga xam ne ñu ngi koy duppee équipe type euh, ñu bëri euh, match yu mujj yi fonds de jeu bi dañ ko apprécier contrairement aux autres rencontres yi nga xam ne saa bu ñu paree waan da ngay dégg critique yi bëri lool est-ce que mën nañoo jàpp ni ak li ñu footballandoo maanaam équipe yi ñu am ñaari match amicaux yi mën na doon équipe type bu Sénégal. waaw équipe type moom bu ko nit ñi di wax daf may xaw a jaaxle tuuti parce que euh, dafa am yu bëri yoo xam ne dañ ci dañ ci dañ ciy dugg euh, tey di joueur bi nekk na en forme joueur bi nekkul en forme joueur bi am na club joueur bi amul club bi mi ngi compétir donc xam nga yooyu yëpp aussi dafa nekk ay ay ay affaires yoo xam ne dañuy bokk ci li nga xam ne mooy permettre sélectionneur bi mu jël ay joueur mm-hmm. waaye li wér mooy di wax équipe type équipe type moo amul peut être mën nañoo wax ossature mhm. maanaam bi nga xam ni pratiquement presque match yu ci bëri ñoom ñoo koy joué tant que ñi ngi nekk en forme tant que ñi ngi joué ñi ngi ñi ngi joué ci seen club mhm. gars ñooñu defuñu dara nekk ñu suspension ñooñu dañuy joué parce que ay cadre lañu mhm. mais du ñàkk nag léegi léegi ay joueurs yoo xam ne peut être ñi ngi commencé di fël ci yeneen nekk ci yeneen club yi nekk ay sénégalais je pense que tey jii euh, euh, la, la, la grande pioche, c'est d'avoir amené Abdou Diallo dans cette équipe parce que ça fait un bon moment, on a amuñu woon un défenseur central gauche. Mhm. et puis un joueur en même temps bi nga xam ne mën na la comme latéral gauche. Mhm. je pense que euh, loolu mooy mooy y critères yi nga xam ne entraîneur mën na cee sélectionneur mën na cee sukkandiku pour jël équipe am. Mhm. mais pour naan équipe bi mooy équipe type moom loolu équipe type man ca euh, presque ci fin de saison laa koy xam ñu xam joueurs yi nga xam ne ñoo ëpp lu ñoo gën wu. d'accord euh, tey jii ndax euh, li ñu gis maanaam ñu yees ñu yokk ci équipe bi mu mel ni dañ ko gën a rajeunir euh, ndax li ñu gis war nañoo jox yaakaar ñu indi ndam ci kaan gi nga xam ne ñu ngi koy waajal. équipe cycle la. cycle la c'est-à-dire que day dem ba benn moment ñii dañuy dem ñii dañuy jeexal ñii dañuy ñëw. Mm-hmm. donc loolu moo waral. et puis ñi ñëw ay sénégalais lañu donc am nañ droit football ci équipe bi mm. quel que soit club bu ñu mën di nekk ci àdduna bi je pense que euh, suñu su su su seen xol maye pour ñu ñëw jouer équipe nationale euh, ils mm-hmm. tey jii je que Sénégal tollootul foo xam ni day dem pour pour bokk ci compétition bi naan damay dem rek pour yam fii pour yam fii mm-hmm. non dañu war am ay ambition yoo xam ne tey jii dañuy dem pour pour gagner ci bisiwaat indaale mm-hmm. parce que dafa jot pour que tey jii suñu suñu équipe bii ak qualité yi ñu am je pense que bu ñu boolee xoolee ñun ñëpp ñu xoolandoo ensemble xam ne euh, équipe nationale c' est un patrimoine national donc euh, ñu demandoo mu bañ a am leneen loo xam ne nekkul lu dul un pour tous tous pour un ñu dem Cameroun mais bu ñu fàttali ne aussi lañ fay fekk ay ñoo xam ne dañoo bëgg ko ñun. Mhm. te booy booy xëccoo nag il faut nga def loo xam ne c' est au-dessus par rapport ak ñuy xëccool pour mu mën a nga mën a jël loolu. Mhm. noo jàngatee coach le fait que Sénégal li jëm ci classement FIFA ba tey euh, moo nga euh, jël place gi mu fa amoon waaye li jëm ci compétition yi ba tey amagul sàkk. waaw mais tey jii ju fekkoon classement bi dañu koy dañ koy dañ koy dañ koy établir ci tenir compte ci trophée kese. Uh-huh. kon bu boobaa Égypte mooy nekk ci kaw. parce que Égypte bokk na ci nation yi nga xam ne ñoo gën a ñoo gën a ëpp lu ñu gagné kan bi. Uh-huh. mais mais classement bi yamul kese ci équipe A bi. d'accord am na yeneen yeneen facteur yeneen critères yoo xam ne eh, dañuy dañuy entrer en ligne de compte. Mm-hmm. ensuite euh, match amicaux yi ñu mujjee joué sax ak adversaire bi parce que adversaire bu nekk dafa am ci benn bo boo bokk benn cotation parce que tey jii euh, nga joué nga joué match amical euh, ak Gambie. Mm-hmm. je respecte beaucoup les Gambiens. ce n'est pas la même chose par exemple nga joué tey jii un match amical contre l'Allemagne. Mm-hmm. parce que en Europe am na euh, club yi am ci benn benn benn pot bu ñu leen chapeau bu ñu leen boole nga am benn cotation boo joué ak ñoom leen gagné tant de points nga am boo defee match nul tant am bu ñu la gagné de points am donc ce qui veut dire que même match amicaux yi adversaire dañ ci am solo ci am solo. donc le fait d'être première nation africaine africaine et ne jamais gagner gagner de trophée continental c'est un paradoxe mais c'est une logique. boo xoolee performance équipe yi parce que ci résultat match yi la mais yamul kese ci gagné trophée yi ou non. Euh, coach ñoo ngi waajal ay éliminatoire euh, weeru septembre la ñu jàppagum pour le moment. boo ñu moyul Sénégal fii euh, duñ fi am match bi nga xam ne dinañ ko fi dalal nan nga jàngatee justement ñàkkum infrastructure gi nga xam ne dund nañ ko. non je pense que loolu nit ñi dañuy wax rek dañuy wax rek bon am na ñoo xam ne peut-être bu dañ leen bu déggee tel na mais li wër Euh, CAF FIFA dafa joxoon ay injection la fédération sénégalaise am ay travaux de réflexion ñu war def au niveau du stade Lat Dior et je pense que ku xool match match ñaari match amicaux yi xam ni am na ay ay ay ay amélioration ci travaux yi am na ay avancées mais li wér tu wóor daal mooy euh, Sénégal fii lay joué bon les gens me diront que euh, Sénégal c'est un pays de football. Mm-hmm. Euh, donc war naa ay ay yu bari mais bu ñu fàtte ni la vie au Sénégal, ce n'est pas seulement le football. L'État sénégalais a encore des priorités dans d'autres secteurs. D'accord. mais tey jii li gën mooy ñu am stade boo xam ni stade bu opérationnel la bu fonctionnel la boo xam ne mën a contenir une grande capacité de de de je pense que Diamniadio ngi nii yàlla na gaaw pare bu boobaa ñi doon wax ñëpp dinañ noppi. Ah, ñu dégg ko ci gémmiñ euh, joueur mu ne euh, pelouse bi dafa am jafe-jafe ndax loolu du am lu mu euh, gën a yàq ci décision CAF. non bul wax bul wax bul wax joueur Sadio Mané moo wax loolu mais loolu Sadio Mané wax xalaatam la Sadio Mané joueur la. waaw xalaatam la keneen mënoon na ko wax keneen mënoon na ko wax ñoom bu ñu sañoon. terrain yi nga xam ne pelouse yi nga xam moom la ñuy joué ci championnat Angleterre bi moom la ñu am fii. Mhm. mais bu bu ñu fàtte ni Sénégal c'est Sénégal du Angleterre tey jii je pense que ñun ñëpp nous sommes impliqués ci combat boobu c'est-à-dire que def ba Sénégal am ay infrastructures yu baax. Mhm. ce n'est pas seulement une question étatique c'est c'est c'est tous les Sénégalais qui sont qui sont impliqués boo xoolee tey jii. Euh, ba ma déggee ni Casa Sport am nañ seen terrain léegi d'entraînement ma gis gazon bi ni mu ni mm-hmm. mais loolu bu fekkoon Casa Sport dafay xaar état bi mu ñu defaral ko terrain boobu duñ ko mos def on m'aurait parlé aussi d'un certain Mathieu Chupin euh, Mathieu euh, Kayor moom aussi bu defal terrain fële je pense que dans certains pays aussi dina am ay ay bonne volonté yoo xam ne duñu xaar état bi mm-hmm. dañuy dem Euh, ut seen juróomi dërëm après bu ñu gisee état mu tegal leen ci ñaar dërëm pour ñu mën a mat leen lu wér te wër mooy même si c'est une question boo xam ni euh, c'est l'état qui doit gérer les infrastructures mais dañuy wax bay ci say woom bay ci say woom. d'accord donc Sadio maane bu waxee loolu xalaatam la ñun entraîneurs yi bu ñu sañoon sax ñu entraîner ci suuf ci gazon la ñuy entraîner tout le temps mais bu ñu fàttali aussi ci ban réew lañ nekk ci ban réew lañ nekk. et justement sànq laajtew ma la ko tey ji yow mi en tant qu'entraîneur nga gis euh, jeu euh, Mendy ak euh, kii di Boulaye Dia individuellement kan ci ñoom ñaar moo la gën a séduire ci système de jeu am. na ku nekk def sa rek xam nga tey ji gardien de but ni amee njariñ ci équipe. Hmm. noonu la attaquant de pointe amee njariñ ci équipe bokkuñu ay fonction mais ñoo bokk waar bi. ñoom ñaar ñëpp ay attaquant la ñu bu équipe ballon bi ñoom ñaar ñëpp ay défenseur bu ñu équipe ballon bi mais li wér mooy <coughs> boo jëloon Mendy tey jii def ko attaquant jël Boulaye Dia def ko gardien de but bu boobaa doo am li nga bëgg mais ku ci nekk rôle bi nga xam ne moom la ñu assigné je pense que boo ko joué euh, day nekk bénéfice pour club bi pour pour la sélection nationale. jeexaleeg Oslo football club bi nga xam ne yaa ko yor jamono ji fu ngeen toll ci waar wi. sant yàlla sant yàlla ñu ci championnat bi ñaari journée moo ci des et je pense que moment la boo xam ne dinañ ci profité pour féliciter encourager encore le président Youssoupha Fall qui a compris très tôt que le le Sénégalais le Sénégal est un pays de footballeurs. Mm-hmm. mais euh, les, les les jeunes footballeurs ont besoin d'être mis dans un cadre boo xam ne pour les épauler pour les aider pour en faire des citoyens demain. qui, vont, qui pourraient participer dans le, euh, le système euh, socio-économique du pays. Mm Parce que tey jii à, à, à, travers le football je veux dire tey jii Oslo bi mu juddee yàggul mais produit na ay joueurs de qualité ay joueurs de qualité tey jii xam ni ñu ngi ci sélection nationale bi ca exemple bi may jël rek mooy John Lop mi nga xam ne moom mooy capitaine U20 yi euh, il y a également Krépin Diatta qui fait partie de la mm-hmm. sélection. pour ne citer que ñaar ñooñu. Mhm. il y en a d'autres dans dans dans dans pays et ça peut-être le euh, Youssouf en tant que président de Oslo il faut comprendre très tôt et mangeant c'est quelque chose chez lui ñu ngi logé presque une trentaine de jeunes de jeunes dans toutes les catégories il a compris ça euh, ces ces ces ces catégories ñu ngi entraîné euh, ci diggante Amadou Barry ak ak terrain Stade Ndiarème sur du gazon je pense que c'est déjà une très bonne chose aussi. ñaanuñu yàlla rek su ñaari journée yi ci des yi nga xam ne bu ñu gañee suñu match bi ñëw rek après l'équipe sera en en Ligue 2. Hmm, d'accord merci beaucoup coach Moustapha. Euh, merci Elisabeth à toi aussi. Mm-hmm. ñu lay jaajëfal bu baax a baax. merci.